ñu koy wax nag nii am na ñoo sax nag di wax président Ousmane Sonko la dal ak ci maire yi nga xam ne moom mooy mbir bu Géejawaay di ko sax tamit ko gërëm président nga xam ne ñoo ngi fi ku mel ni am naa soirée ku mel ni Omar Awa Thiaw ak bureau municipal bi yëpp ñu koy wax chef de service yi ak directeur yi aussi ak collaborateur ak presse bi ak waa Guédiawaye yëpp Ousmane Sonko nag bii nekkul bu njëkk mu ñëw fii di ma seet si Guédiawaye ci bisu bànneex ñëw na ci suñuy conférence bisu tiis am na ci ay nit bu ñëw ñëwaat na fii ci élection locale ñëwaat na fii ci élection député day mu ñëwaat ko defee nag ñu sant gërëm baax waaye gërëm tamit waa Mbacké yi nga xam ne ñoom moo nekk nii waaye baax gërëm gërëm ñi dégg nii ñi nga xam ne moom moo gisee kilifa te Alpha Ba nekk si ma nekk si dëkkandoo waaye nuyu tamit honorable député dina wax leen nekk suñu collègue député à l'Assemblée nationale ñu sant ko tamit bu baax ci say teewaay gërëm li nga xam ne moom mooy madame la maire di Khady Diagne Ngor bokk tamit Pastef nekk sama gërëm tamit suñu président commission communication fii ci biir commission yi ko jiite di Aïssa Seck moom it bokk Pastef ba tey gërëm nag suñu xarit bokk suñu conseil spécial mu dëkkandoo mu dëkkandoo sàmm rek mooy moom du dese moo tax lii solo la ci jàngat loolu da ma leen présent nit bu baax boo ne yéene ñu jàpp jàppale ñu nag parce que bi ñu nekkee ba léegi muy muy hôpital Roi Baudouin lépp fu mu xalaatee war nañ mën a am kii am collaborateur bu ñu liggéey moo jàppale ñu nag bu baax a baax a baax su suñu doyen toog tey ñoom grand Doudou Ndiaye Mountaga amalu Sarr grand Abou Diallo Serigne Gueye maa ngi lay nuyu ak waa Waxinaan ak euh, mon frère euh, Keita bu notaire le patriote ñun daal en tout cas gërëm nañ ñëpp. sant nañ ñëpp defaat nga ko nag li ma waxoon 2S dama ne képp koo xam ne nekk nga maire wala nga nekk député bokk ci biir coalition Yewwi Askan Wi amel na la njukkal mais rawatina nag ci député mais ak locales yi élection locale yi président Ousmane Sonko da nga nekk candidat Ziguinchor mais ku nekk bëgg na nga ñëwal ko ci département bi nga bàyyi yow sa commune te ngay wut mairie ñun de bàyyiwuñ ko suñu commune ñëwal la di la di la campagne mais ñëpp nga dem campagne aw élection député yi ñëw ñu dindi suñu liste euh, euh, euh, liste nationale nga jiite woon ko mënoon wax ne comme que les carottes sont cuites man bokkuma ci. xaaral nag ma ñëw toog noppalu parce que li ma dund ci local yi dafa metti mais xeex bi nga xeex ci élection député yi moo gën a metti sax li nga def ci élection locale yi loolu mu nekk ay sacrifice ku nekk nag bëgg nga jaar ci département maa ngi doon tooñ gars yi deux ma ne leen cuuraayu dëmmam bi moom fu mu jaar rek gars yi xam ñii daanu man nag man Ahmed Aidara li ma liyee ak moom gën a force sax affaire politique moom xam na élection député yi jot président Ousmane Sonko nga indiwaat sacrifice mais dama ne avant locale yi ak député yi sacrifice yi dafa am lu ko jiitu te 2 wax naa ko ne lu la dal ci xeexal sénégalais yi moo la ko yóbbee ñàkk sa liggéey ñàkk sa yenn xarit li la dal ci histoire politiku gu Sénégal bu dee mës na am ñi mu dal dañ leen di wàññi wala bu dee mës na am kon nag man Ahmed Aïdara monsieur le président ne woon fa maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan yàlla dëgëral sa taxawaay man maay premier maire Yewwi boo xam ne da nga ñëw en tant que président ñëw seet si ma te mënoon nga ne ñun waa Pastef yi kese laay dem seeti sama yoon newul ci ñenn yi wala man bokkuma ci list sama yoon nekku ci wala man sama commune kese moo ma intéressé ñeneen ñi intéressé wuñu mais lu ñu def rek da ngay jiital intérêt général et non personnel kon nag ñun daal en tout cas sant nañ la gërëm la sant tamit suñu grand frère suñu dëkkandoo di président Jibi Gueye Ndiaye ma bokk ak moom benn koñ moom tam suñu ñëwee ba fii ak votre sécurité président Ousmane Sonko sa sécurité bi gars bu ñu yeggee ci bërëb xam naa gars yi tam ñu gërëm presse bi gërëm ñëpp ñoom nag tam gars yi ne non c'est normal mais dañ sénégalais ku la bëgg boobu ñoom moom moo ñii ñëpp amel nañ leen njukkal parce que yow vous méritez une protection mais yàlla nag moo yor protection bi gën a wóor c'est pas pour rien ma tuddee la ne Moussa bu Ziguinchor a ngi nii mais Moussa bu Sénégal nga léegi yàlla mooy aare te mooy joxe nguur bi ñu demee Canaba xalifa général bi dafa ne ci kanamam moom ak ñoom président Khalifa Sall ne gis nga mbir mi jarul dara yàlla bu bindee sa biddiw ne da doon buur def biddiw bi ci yow buñ la jëlee dugal la ci gën a dëbb la ba nga mokk biddiw bi kuur gi du ko laal. kenn mënu ci dara dara dara dara et la preuve est là armada bi ñuy utiliser yëpp contre vous mais saay boo xëyee rek affaire bi gën a neex te comme ni la ko sëñ Mountakha waxee rek mbégte mbégte mi rek ñun daal ñoo ngi lay ñaanal yàlla man boog personnellement ñoo ngi lay ñaanal yàlla wax ji gudd na mais mënoo ñëw ba géejawaay nag ma ne nii rek ne sant nañ la gërëm nañ la rek bàyyi la nga dem parce que da nga fi ñëw ñëwaat fi ñëwaat fi ñëwaat fi ñëwaat fi président nga bokk ci ñu ci jeunes yu raar yu nekk ci dëkk bi yoo xam ni da ngay jokkoo ak ñoom téléphone boo gisee sama appel woowaat ma su ma la yónnee message nga woo ma loolu yëpp il faut ma wax ko fii pour wax waaw bu ko defee nag wax la yit ne mbokk yi nuyu nañ la affaire mbokk yi nag moom comme que visite bi dafa officiel dama naan mbokk yi nuyu nañ la rek daal di noppi waaw di la jaalo it sama benn mag moo bokkal ndey ak baay di Moussa Edara waaw xaayaar na ku dégg séeréer yooyu daal laay wax rek sant la nag gërëm la bu baax a baax a baax